plateau spécial Covid 19 mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontante ak mbégte jano ak yéen ci seen plateau yi nga xam ne si moom la ñuy euh, jagleel euh, lépp luy coronavirus euh, fii ci Sénégal ak li nga xamante ni moom mooy actualité jëm ci wàllu woowu waaye tamit naka la ñuy def ba génn ko fii ci Sénégal duma ma ci wéet chaque jour Moustapha mbay la ci àndal nuyu naa la Moustapha. maa ngi lay fay Mahfous di nuyu képp koo xam ne internet nga di taamu di ñu ñu teewlu. Mhm. depuis bi ñu commencé plateau spécial yi ba tey. ay ayca Moustapha tey xam na eh, ginnaaw résultat yi dinañ waxtaanee li nga xamante ni moom mooy eh, discrimination bi nga xamante ni eh, ñi ngi koy def ci ñi nga xamante ni dañu amoon feebaru coronavirus ba wér. muy ñu koy woowee stigmatisation euh, foofu ci xam si ni am na ci ñu koy euh, ñu koy dund euh, donc dinañu waxtaane aussi lii yëpp problème ndox mi nga xamante ni jamono bii mi ngi lëmbee réew mi am na diwaan yu bëri yoo xam ne amuñu amuñu ndox ci jamono joo xam ne ñi ngi wax ñu raxas loxo yi ak di ànd ak cet waaye ginnaaw loolu ñu new mbokk yi ak résultat yi ñu am tey jii ci talaata ji yemoo ak 16 juin deux mille vingt neuf cent quatre vingt la ñu réalisé foofu ca institut Pasteur 74 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas positif mu nekk benn taux de positivité bu toll ci 7 virgule 4 pour cent 64 contacts suivis la ak 10 yoo xam ne si ni moom la ñuy woowee ay cas communautaire ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy point E. Euh, foofu euh, deux cas communautaires lañ fa euh, lañ fa am HLM Grand Yoff Yëmbal Rufisque Diourbel foofu fu nekk benn cas communautaire la ñu fa am waaye fële ci Touba am nañ fa lu toll ci ñeenti cas communautaire 101 patients faj nañ leen ba ñu wér ba ñibbi ci seen njaboot tey jii ci tey jii ci talaata ji de 22 cas yoo xam ne si ni ñu ngi ci ay situation yu grave ñu nekk ci service de réanimation yi ñuy teg ci opito yi ñi ñi ci des Moustapha seen yaram mi ngi am tan bu baax bu ñu sukkandiku ci communiqué bi jóge foofu ci ministère euh, de la santé de l' sociale euh, tey jii nag euh, démb sax lay wax ci altine ji juróom-benn ci ay patients ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi ñu koy mettitlu bu baax di ko jaale seen njaboot waaye tamit di ko jaale Sénégal yëpp jamono ji nag Moustapha cinq cent cinq mille deux cent quarante sept euh, moom la ñu enregistré depuis mbas bi dugg fii ci Sénégal trois mille cinq cent vingt cinq ñoom ñoo ci wér faj na leen ba ñu wér ba ñibbi ci euh, seen njaboot soixante dix ñoom ñoo ci euh, ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan euh, ginnaaw ñeent juróom-benn yi nga xamante ni euh, enregistré nañ ko démb 1651 jamono ji ñoom ñoo nekk ci centre hôpitaux yi ñu leen di amal li nga xamante ni moom mooy ay traitement Moustapha loolu lañ fi am ci ay résultats tey ji ci talaate ji yemoo ak 15 juin ñu ñëw ci commentaire yi de façon globale tey ñu gis ne am nañu juróom-benn décès yoo xam ne mm-hmm. si nii yokk na ci liste bi waaw waa ni ñu ko waxee rek ah je pense que démb ak tay moom liñ ko dooree doy na waar trop. Mhm. parce que dañuy xëy ñu ñu boole ci biir communiqué bi léegi dafa am beneen volet bu ci commencé dooleeku muy décès yi. les nouveaux décès waaw nouveaux décès yi donc à part cas contact cas yi. ak euh, nombre de guerriers yeeg yooyu cas grave yi mhm, léegi mu mhm. dafa am paramètre bu bees bu ci commencé yokk mooy décès kon ce qui veut dire xeex bi mi ngi mi ngi mi ngi jël beneen dimension boo xam ne nit ñi bàyyi ñu sax xel parce que dañu doon door cas kese ñu dem ba si ak ñu duggal ci cas contact euh, cas contact la woon ka importe ka importé la njëkkam après cas contact yi ñoom ñaar ñoo doon demandoo ba si yàgg cas communautaire ñëw yokkeeku si mhm. léegi ñi waxati cas communautaire léegi nombre de décès ñëwaat dooleeku ci mhm. donc ce qui xeex bi euh, jàngoro ji mi ngi jël beneen euh, yoon boo xamante ne nit ñi bàyyiwuñ ci xel bu baax a baax mhm. war nañ ci gën a mën a bàyyi xel parce que bu ñu amee ñett ñu xaar ñuy six dee nañ ah ñaanuñu yàlla ñu xëy ñu naan ñu dix dee nañoo quinze dee nañoo vingt dee nañu mhm. kenn ñaanu ko yàlla mhm. mais je pense que loo xamante ne tamit war naa attirer attention nit ñëpp ñu bàyyi si xel mhm. parce que buñ naree wéyee ni di dem ah dina dina dina gën a métti fuñ jëm beneen mbir bu ñuy bu ñuy bu ñuy souligner ci affaire u tamit mooy léegi constat bi ñu ci def mooy information yi daanam amatuñ ko mooy ni ñu daan waxee fan lañ fan lañ ban hôpital la génne àddina parce que dañ daan wax ne principal la génne àddina wala fële wala fii malade bi góor la wala jigéen la yëpp amatuñ ko hmm. je pense que mun nañ dindi yenn yi sax mais am na yoo xam ne nag war soxlawoon nañ xam góor wala jigéen la hmm. at yi mu am ak yooyu yëpp pour ñu gën a mën a xam xeex bi nu mu fu mu toll ak yenn yi mais yooyu boo ko nangoo si nit ki hmm. jox ko rek nag am nañ temps de décès rek daal di dem Euh, je pense que ñi nga xam ne dañoo nekk ci benn niveau boo xam ne dañuy dute fu ñu toll. mën nga leen may lu ñu dute. Mhm. mais est-ce que du euh, li nga xamante ni dañ koy faral di dégg ñu daan feebar bi mag ñi rek lay rey euh, parce que bu ñu gisee ñi ci ñàkk seen bakkan ñëpp ci soixantaine yi la ñu nekk. 61 mhm. euh, jëm jëm kaw ñi ci wàcc euh, as as néew la. Mhm. donc est loolu la bëgg a dindi ci bopp nit ñi moo tax joxatuñu âge. waa xam naa stratégie bu bees la suñ ko deful ndaw ñi dañuy dootuñu. waaw xam nga xam nga bakken moom bakken la. mu am 60 ans wak mu am vingt ans wak 15 ans wak 18 ans wak ci am bakken bakken la. Mhm. ku dem rek yóbbaale ay projet ku dem rek yóbbaale ay mbébét ba tax na loolu tamit xalaat la boo xam ne ni ñenn ñu bëri yu bëri surtout boo nekkee ci benn kër goo xam ne amul mag wala affaire yow da nga yaakaar ne feeru sa li ma a jàpp rek mooy même su fekkente loolu tamit lu ñu mën a dégg la mais nit nit ñi tamit war nañu xam yenn yi waaw war nañu mën a xam yenn yi parce que pour man xeex bi dëgg du côté boobu mais information boo xam ne da nga koy joxe à temps comme ni ñu koy defee nii chaque 10 heures nga joxe information ni ñu xam ko loolu baax la parce que dafay tax fi ñu toll nii kenn mënul toog di créer ay décès yu amul kenn mënul toog di créer ay cas yu amul parce que ministère yi mayuñu benn prox ndollu nit ñi di fa def ay supputation ak ay fausse information chaque jour ñu jox ñee information yoo xam ne boo sukkandikoo ci ñoom xam fi coronavirus toll Sénégal kon nombre de décès yi ak ñiy faatu tamit bu ñu may nit ñi ay porox ndoll ñiy xalaat wala di jéem loo xamante ne mënta ñàkk waxuñu ñu joxe information yi mais am na information mënta ñàkk nañ koy joxe. 10 euh, cas communautaires la ñu euh, mu wàññiku euh, gis nañ ci ak wàññiku waaye tamit gis nañ ak wàññiku ci li nga xamante

boobu ay 100 tests lañ daan def ñu doon di def 200 tests am ay 25 cas 30 cas mais bi ñu demee ba ko dugg ci baaru 1000 tests yeeg yooyu si lañ commencé dugg ci 100 cas. 100 90 80 cas. donc tey mhm. donc c' évident bu ñu amee nombre wàññeeku nombre de cas forcément dafay dafay dafay dafay wàññeeku. 22 22 ah, cas graves ñu nekk ci service de réanimation yi ah, donc loolu moom dafa mel wàññeeku parce que 22 la amoon démb yokk ci 6 décès mu desaat. mu desaat 22 22 mu mel ni que ni euh, nombre bi moom foofu day yokk rek. waaw nombre de cas grave daal man fi ñu toll nii moom pour man. loolu mooy loolu mooy loolu mooy loolu mooy mbir mi jamono ji waaw loolu moom moom vraiment. loolu moom mooy mooy lépp mooy lépp parce que cas grave moom wax dëgg yàlla moom ci yàlla doon dimbali rek mën nañoo jàpp ne ñeneen ñi sax. ñi nga xam ne ay asymptomatique lañ. Mhm. ñi xam ne seen cas grawul noonu dañ leen di faj loolu wér bi c'est normal. Mhm. da ngay dem ñu faj la nga wér dem ñibbi sa kër. mais bu demee ba dugg réanimation beneen dimension lay jël beneen tournant lay jël te mbir la boo xamante ne rek euh, non seulement c'est coûteux non seulement amuñu place yu doy tamit fii pour jël ñoo ñu ñooñu réanimation donc day doon mbir moo xamante ne daf ñu yóbbu ci beneen dimension boo xamante ne mooy procédure sélection sélection am na dëkk yoo xam ne foofu lañu toll actuellement bu ñëwee dañuy xool ñan ñan ñoo ko gën a yelloo ñu jox leen ko ñi ko gën a yelloo jox la ki ñeneen ñu xool naka lañ leen di traité si beneen côté euh, c'est te loolu sax du niveau côté réanimation kese mais côté hôpital même mm-hmm. parce que ñëpp xajatuñ ci hôpitaux yi euh, loolu bu malaata yeggee ci benn niveau bi dootuñu ko attanati mm. même waxuma côté réanimation parce que réanimation moom moo gën a niveau bu kawe bi la donc dañuy ñaan yàlla rek mu ñuy dimbali bu baax a baax ba ñi nekk réanimation doon chiffre bu ndaw ndaw je pense que loolu mooy gën a dimbali suñu corps médical bi mm-hmm. loolu mooy commentaire yi nga xamante ne jagleel nañ ko résultat yu ñu am tey jii ci talaata ji donc ñu daal di jàll ci leneen mu muy discrimination wala stigmatisation bi nga xamante ni ñi amoon mbas mi ba wér ñu ngi koy ñu ngi koy dund jamono jamono ji euh, ak fu ñu mënti nag Euh, bëri nañ ci ñoo xam ne si nii daanaka euh, euh, maanaam feebar bi sax leen gënal léegi maanaam fe ñu fa ñu nekkoon moo leen gënal mhm. sax léegi ndax dañoo wér gën a am problème. nga xam ne amuñu ko woon sax bi ñu amee feebar bi. non Mahfouz dañoo wér gën a feebar. gën a feebar waaw dañoo wér a feebar loolu xam nga loolu loolu loolu mooy loolu mooy musiba bi bi bi nekk ci corona. Mhm. parce corona moom lii ñëm bi yëpp. amoon na fi ay jamono fii nit boo jegee nit sax mu foog ne da nga koy wàllu corona. mooy bi ñuy ko période 22 mars be ko bi ñuy doog a déclaré état d'urgence bi bu corona jaar rek kenn kenn du fa jaar waaw fa xam nga loolu. <laughs> loolu dafa dafa juróon benn benn benn psychose boo xamante ne. nit ñi nit ñi dañoo dañoo commencé woon tiit benn tiitaange boo xamante ñëpp di dund stress. Mhm. dëkk bi ñëpp stressé woon. Mhm. koo wax mën a li corona corona corona corona kenn dajeetul kenn nuyoowul kenn deful parce que feebaru bon la parce que dafay tax ki nga dendeel nga seexlu ko day tax ki nga dendeel nga ragal ko day tax ki nga dendeel nga nga di ko moytu sentiment de méfiance bi de suspicion boobu muy jur ci nit ñi dem ba dafay creuser distance yow da ngay jege nit sax di ko jox dara sax mu mu mu mu lay éviter tuuti mais doo am xel bu gàtt mais da ngay comprendre xam ne jàngoro ji moo fa toll nga bàyyi noonu mu dem donc balaa mu laa dal si yëglu beeg yooyu moo lay njëkk a sonal bu la dalee nga stressé wu ndax dinaa wér su ma wéree nu mu demee boo wéree nag daal di feebar gën a am problème boo wéree gën a am problème parce que boo wéree population bi niñ doon communiqué ak ñoom moo tax ñu jàpp ne corona benn musiba la boo xamante ne bu la dalee rek képp ku la jege corona na encore une fois. Mm. donc loolu li ko waral nag mooy ministère am nañ ci part de responsabilité ak autorités yi. dooree ko ci niñ ñu doon jëlee ñi nga xam ne dañoo am corona di leen quarantaine di leen si kër xam nga ni ku fekkee ne am jàngoro ci këram nga ñëw jël ko doyul. nga jël papaam jël yaayam. indi dëkkandoo yi ku ko xam indi ambulance gaari ay su ma gisee kooku bu génnee doon amaat ci ne kii kat ah saa waay mën nañ ko testé muur waaye boo demee jàngoro jàngee moom de mhm. te man bëgguma ko fañ ma yóbbu woon mhm. donc buñ jëlee corona transféré dañ ko war a daw dañ ko war di moytu mhm. kooku bu wéree du ñëpp ñoo am xalaat ne kii kat war naa ko mën a fréquenté léegi donc du doon koo xamante dañ koy yomb fréquenté loolu benn problème la beneen problème bi mooy nit ñi seen bopp nit ñi seen bopp ils n'ont pas assez d'informations ci corona bi pour xam mode de transmission bi ak bu wéree nu muy demee loolu je pense que aussi tamit euh, waroon nañ ci gën a mën a dafay effort beneen côté bi mooy suivi psychologique bi parce que ñëpp yemuñu am na benn ñu def ay interview démb ci journal L'Observateur ñenn ñi di xamle ne moom bi mu jamono ji li muy dund day dem ba si yàgg di xalaat xaru. xaru xoolal loolu. mu fi mu toll nit ñi regard bi ñu koy xoolee ñenn ñi ne nag tey lañ gën a feebar sax que biñ woon donc mu doon ay ay ay renversant yoo xamante mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. ne yow am na ñoo xam ne dañ koy dund xam nga ki nga xamante ne déjà psychologique il se croit euh, isolé moom tey ji su ma génnee taxawam maxfus maxfus su ma xawee sorti sax dama naan sama corona bi tam maxfus sori ma kooku dafay kooku daf koy travailler kooku si boppam sax moom moom mooy njëkk sonal boppam kooku bu amul benn suivi psychologique bi ñu indiwaat ko indiwaat ko psychologiquement delloo si ko si biir société amaana mën na ko jural ay problème yoo xam ne fii ba ci kanam a kanam corona du bàyyi ak moom corona dina dem waaye du bàyyi ak moom. donc donc euh, su la euh, dagguma la sax mais donc su la déggee euh, ñi nga xamante yi donc après après coro après ki nii yi ñuy wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo feebar ñoo feebaroon ba wér. waaye di wax ak ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo ñoo dëkk ak ñoom te di leen daw pour ñu xam ko bu baax que euh, nit moom su xasee ba feebar ba wér rek bon amatul problème amatul parce que dañ leen di fàtte de côté boobu côté suivi psychologique boobu dañ di fàtte parce que waxuñu nag ku nekk ku wér ku nekk rek ñu wutale benn psychologue wala noonu mënul nekk mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne bu ñu bu boo leen xoolee xam nga ñii dañ ko soxla c'est-à-dire ñi nga xam ne wér nañ ñu bañ a rompre contact bi automatiquement ak ñoom mm-hmm. parce que di nga dégg ku la ne man bañ ma naan génnal passe moo yóbbu am na benn dàmm bu def témoignage boobu passe moo yóbbu sama kër sax aw ma ko damay woote ñi expliquer ay situation yoo xamante ni doy waar la kon kooku day dem ba jàpp su autorité dañ koo tooñ te pourtant dañ koo faj jàmm moo taxoon yóbbu ko donc am na ay écarts yoo xam ne ñu ngi koy def yoo xam ne war nañ ko mën pour man heureusement léegi yóbbu quarantaine amatul kon du ñëpp lañ mën a suivre parce que ay milliers yoo xam ne wér nañ ñoom ñëpp mënoo leen toog nga wutal leen benn psychologue mais am na ñoo xam ne pour man waruñoo perdre contact bi ak ñoom après ngay woote bu même bu dee famille bu nekk sax nga am koo ci woo ata naka membre yi nu ñu def ñu expliquer kii ak kii ak kii nii lay développé nii nii ak nii lay comporté woo ñu xam ne kii kat mérité nañu jël ko en charge mais du ñu toog di bàyyi ba nit di ko misère di ko misère ba dee fekk corona rayu ko sax mais corona moo ko rey en réalité donc loolu tamit war nañ ci war nañ ci mën a bàyyi xel tuuti di amal suivi boo xamante ne dina dimbali ci askan parce que am na xamante ne ñu ngi ci le martyr vraiment. Euh, xam nga ku euh, bala ma bala ñu jàll ci beneen beneen point bi. Mm-hmm. Euh, ma ma ma fàtte ma fàttali ko rek mooy ñi nga xamante nii dañuy am feebar di daw xam nga loolu moo koy waral am feebar ba pare ñu nga war dem ñu faj la ngay daw te xam nga lii nga nga lii feebar bi mën na laa rey ba pare nga ni bëggoo dem faju ji donc loolu moo loolu lañ ciy xalaat. musiba loolu lañ ciy xalaat. Mm-hmm. donc ñu daal di jàll ci beneen point bi nga xam ne si nii fa la ñuy tëjee muy problème mu ndox mi wax naa ko ci njàlbeen ba jamono ji am na diwaan yu bëri yoo xam ne si nii amuñu ndox mu ñu naan waxuma la raxasu na nag te jamono bii jamono raxasu la eh, jamono set la ndax feebar bi nekk ci dëkk bi loolu tamit c'est paradoxe c'est paradoxal mhm. di raxasuloo nit ñi ba pare te joxoo leen ndox te te joxoo leen ndox mi ngi mel nii nga bëgg a añloo nit ki te joxoo ko ceeb joxoo ko lu mu lekk eh. donc euh, dafay dafay dafay paradoxal dafay contradictoire eh. parce que tey ñaari fan yi ak ñetti fan yi si ginnaaw xam nga daf yu jéggi daayoo ngay gis mhm. image yoo xamante ne man je me dis kañ la ñuy tàggali ko ak moom image yu ay ay soxna di di di di rang ñu leen benn citerne ñu wër ko comme pas possible ñëpp ñëpp te te kat rassemblement la ñuy bañ de ñëpp dajaloo ci citerne bi di wut ndox mhm. nga ne rassemblement ngay bañ beneen mbir bi nga ne nit ki day raxasu foo toll tàngaay bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne tàngaay bi ngi dañuy ñàkk waaw di lijjanti lu mu naan nga naan kaal day raxasu ak day donc finalement man je me ak lu ci mënti am am na nag démb ay explications yu ci dégg ñu ne comme quoi tàngaay bi demande bi day bëri ba nga xamante ne te offre bi dafay xaw a compliqué tuuti mais loolu loo xamante la. Euh, mais loolu du prétexte. non du prétexte parce que ku ndox ku nekk da nga ko war a am euh, chaque heure bi na fekk ci ndox loolu mooy yoon. mais loolu du prétexte. waaw loolu du kenn mënu koo nangu. surtout jamonoy Covid 19 bi man pour man même bu fekkonte ne doon na am daaw ak daaw géej ak war woon mën a am. Mm-hmm, mm-hmm. parce que ak lépp lu ci mënta am nit ñi. ndox miñ leen di jox yalwaanuñ ko majaaluñ ko seen seen droit la buñ ko fayul dañ leen di couper. Mhm. kon pourquoi tey jii yow boo fayul ñu couper la pare ndox mi nu leen neex lañ la koy ñu am ndox. ñooñu tànn nañ am na ñoom te te te durant diir bu ñu ko dund kenn xamul nu mu toll ay ati at amuñu am ñu gis 2 heures du matin la ñuy yeewu wala 3 heures du matin pour root ndox te a xëy suba dem liggéey. loolu calvaire boobu yëpp ñuy dund. soo fayul ñu tëj ñu couper la donc man je me dis foogoon nañ ne nag bi Suez ñëwee dinañ dinañ dinañ gis lii wan ñu ginnaaw mais actuellement li ñuy dund nii wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ba léegi kenn xamatul foo jëm. parce que ka fi nekkoon nii la meloon. yow nga ñëwaat tamit gën koo yées fu nit ñi jëm. donc pour man daal problème bi nee nañ euh, demande bi heure bi day bëri affaire yooyu ñu kërëb kërëb mais day loo xamante du neex a du ñu neex a la yàlla mm-hmm. parce que ndox wax dëgg yàlla Sénégal fi mu toll nii pour man kenn waxul ne coupure ndox warul mën a am kenn wax ko parce que bu ñu fàtte tamit kat Sénégal du Paris du beneen dëkk yi nga xam ne dañoo am doole réew yu ñàkk doole lañ bëri bor amuñu amuñu xaalis loolu dañ ko nangu mais am na yoo xam ne tamit il faut que ñu bañ ñu mën koo dépasser waaw du dama ñàkk doole rek ndox moom wax dëgg yàlla ndox moom ak situation yi nekk waaw jëndiwuñ ko fenn am nañ ndox fii ci Sénégal moo xam ndox mi ñuy naan fii lañ ko jëlee ci Sénégal am ñoo xamante ni sax ñu ngi jógee ci àll ba ñëw fii di exploiter suñu napp napp doo yi di ko jaay yaa ngi dégg ba pare ñun mënuñu Sénégalais yi mënuñu jot ci ndox mënuñu jot ci ndox mu ñu naan waxuma laa sax bay raxasu loolu tamit euh, xam nga euh, neexul dégg neexul neexul dégg de neexul dégg de vraiment ñu leen ci lancer un appel ñu def lépp lu ñu parce que askan wi sonn nañ askan wi sonn nañ trop. ndox daal mënut a ñàkk en tout cas doy na waar trop xam naa ne ministère loolu ci waxtu daanaka jeex na waaye daal leen naa la xamal courant moom mën nañ ko accepté parce que courant mën nañ ni pétrole bi dañ koy jëndi mhm. euh, mën naa am ay ay ay problème yi ci am ak yooyu ni ñu mel euh, amul problème waaye ndox moom comme fii lañ koy defaree fii lañ koy jëndee fii lañ koy mhm. jëlee mhm. ci réew mi donc je pense que waroon na mën a mat ku nekk waroon na ci mën a am heure bu mu ko neexee bu ubbee robinet am ndox mën a mën a naan mën a mën a raxasu looy tàggatoo waaw li may tàggatoo we rek mooy di ñaax autorité ñu dimbali waa banlieue beeg waa Ndakaaru sonn nañ trop ci ñàkkum ndox mi mhm. tàngaay bi dëkk bi dafa tàng mënuñoo boole tàngaay ak njàkk ndox eh, loolu moom fànk mi ngi am xeex bi ñuy wax ci corona je pense que mënuñ ci am résultat yi ñu yaakaar parce que mënoo di raxasuloo nit ki te nit ki pour mu jox la setal sax da koy waaj waajaat ko parce que danaan setal bi su ma ko joxee est naa am setal gu ma jàppee 14 heures mhm. su ma ñëwee raxasu est dinaa am lu ma lu ma jàppee mhm. donc yooyu yëpp il faut que ñu def le maximum pour fexe ba nit ñi ndox mi ñu si jot ca nam ca waree mhm. jamono ji nag du jamono ñàkk ndox kon ñoom ñoo gën a xam loolu nañ def seen fulla ak seen fat a résoudre problème acca kon euh, mi ngi noonu seen plateau spécial Covid 19 la woon fii ci Sunugal 24 may remercier bu baax euh, sama cameraman bi Dóor waar ak bi Biggi moom ma nga fële ci rédaction ba tey ca montage ba euh, di leen jaajëfal aussi yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci biir réew bi ak bitim réew tey sunu safo Sunugal 24 ak ay programme am ñu leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat